asalaamaaleykum mbokki Koungheul ñu ngi leen di nuyu leen ziare ci weeru koor yi ñu jóge di sant yàlla bi nga xamee ne may nañu ñu fekkee ko di ko ñaanit mu may ñu fekkee ko ci at yu baree baree bari ci kanam saxal ñu ci diine musal ñu seytaane yàlla ñu yàlla may wér ak wérle yàlla ñu yàlla taxawu li nga xam ne ñun ñëpp ñu ko sumb te mu nekk lu baax loo xam ne mu ngi jëm ci askan wi yàlla nañ ci yàlla taxaw ñu ngi ziare kilifa diine yi ak kilifa aada yi di ziare bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ni ci biir Koungheul ñi ngi yëngatu njëriñu askan wi pour njëriñu département Koungheul ñu ngi itamit di félicité bu baax di sargal ñëpp ñi nga xam ne ci weeru koor wi taxaw nañu askan wi ci seen doole ku munta doon ak noo ko munta defee ba ci xale yi nekk ci koñ yi di maye kafe ba ñi nga xam ni itam yàlla wërsëgal na leen ñuy génnee ceeb ak diw ne nag ki suukar ak lépp di ko dimbalee néew ji doole yi ñu leen di sargal ci loolu leen jaajëfal ci lu rafet loolu nga xam ne def nañ ko di gërëm di sant yi tamit doomu Koungheul yi nga xam ne yëpp ñu ngi yëngatu pour njëriñu département Koungheul di yëngatu njëriñu communes yi di yëngatu ndax njëriñu askan wi ñun ñëpp yàlla moo def ñu yëngatu ci Koungheul ku ci nekk ci anam ba nga ko mëne ñu ñaan yàlla yàlla ñu yàlla boole taxawu ba sunu mébét mu jëm ci askan wi rafet ci askan wi baax ci askan wi yàlla na ko yàlla mottali ñu góorgóorlu rek yàlla ñu yàlla musal ci seytaane ndax seytaane rek mooy nasaxal liggéey Koungheul yàlla may na ko lu mu mayul département yu bari ndax li fi yàlla def ci doom yu tekki ci xam-xam ci am-am ci mën-mën ñun ñëpp bu ñu fexe woon ba bëreeg seytaane ànd nekk benn lu nekk mën nañ ko defal suñu département bi lu nekk mën nañ ko defal suñu commune yi kon nag ñu góorgóorlu ci loolu seytaane dafa bari doole waaye ñu góorgóorlu yàlla nañ ci taxaw incha allah di jël occasion bi tamit di féliciter bu baax a baax. moo Modou Seck Ndimbelaan mi nga xam ni moom la coopérative yi ak GIE yi ak ñi ñu àndal yëpp taxaw fal ko ci coopérative départementale boobu ñuy ñu wooye COFDEC naatal Koungheul yal na ko yàlla taxawu moom ak ñi mu àndal ci liggéey bi ba ñoom tamit li ñu yéene département Koungheul ci koom-koom yàlla dimbale leen ñu mottali ko di encourager bu baax a baax suñu élèves yi ak suñu étudiants yi leen wax nañ góorgóorlu parce que kat ëllëg ak si biir ñoom ñoo ko moom euh, kon nag ñoom tamit dañ góor bu baax a baax a baax ci njàng mi yàlla leen yàlla taxawu seen njàng mi bënn bu baax a baax baax di ñaan yàlla mu may ñu fekkee déwén ak jàmm ku nekk ci la nga nekk yàlla nga ci toog ak yokkute yàlla boole ñu musal ci seetaane taxaw ñu biir ak biti asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu